incha allah gis nañ ko gis nga sëriñ moom ci yu baax yi nga xam se moom la daal di génn mhm. zone bi gis nga ko ah macha allah eh, xam naa ne eh, gis nañ ko muy def yu baax yu rafet yi mhm. ku ko daal di bëgg bu nekk rek dangay ngay daal di jokkoo ak moom ci numéro bii mhm. nga xam ne mooy 78 543 38 99 wala 77 782 41 01. boo dikkee rek mu daal lay defal yu baax yi. Mhm. nga daal di daal dem daal di jongo daal. gis nañ fi la génnee c'est vrai que bu ma gisee sa ibaadu bi da muy nuru ko xaw a yiw waaye doy li nekk ci jëmm ji moo nekk ci xel mi nekk ci xol bi. ayca loo wax ci Chérif ak tey fi la génne. waaw Chérif kontaan naa ci robe bi yiw na rafet na macha allah. Mhm. may mel ni endo. ah très rafet na trop. ñu ngi mhm. koy sant di ko gërëm. di di wax da ngay jël numéro bi 118. 543. 33 119. 77 782 41 01. di leen wax nag ngeen gaaw ñëw ci Cherif. Mhm. mu defal leen yu baax yi. Mhm. gis ngeen ñu macha allah ñu ngi jox. le Cherif confection ah, génne vraiment aussi euh, mhm. tenue yi ku ko soxla itam mën nga ñëw fii ci comp. moom mi ngi fii ci Ndaam numéro téléphone yi 78 la 543 33 79 wala 77 782 41 01 mooy suñu partenaire officiel nekk itam ci euh, wetu euh, Ndaam ci wetu Sonatel bi muy complex Serif Confection di def nag euh, couture bu am solo am na aussi ay prêt à porter pour góor en même aussi pour jigéen donc ñu fi nekk ña va euh, pressing aussi dañ ci yëngu donc euh, lu mu nekk lu am solo ma fàttali ne numéro téléphone bi moo di 78 543 33 79 78 la 543 33 79 wala ngeen woote ki 77 782 41 01 77 782 41 01 képp koo xam ne rek bëgg nga lu baax incha allahu rabbi boo ñëwee fii ci Cherif incha allah di nga ko am. dem ci ñu ànd ci ak euh, soxna Mame Fatou Kébé mel na ni am na lu ñëw ci wàllu actualité yi nga xam ne moom moo gën a fës. Euh, ci semaine bi wala sax ayu bés bi comme ni ñu ko waxee ci olof Mame faatu mel na ni am na loo toogaale mm-hmm. waaw jërëjëf El Hadji Ousseynou comme ni ma ko waxee sànq rek ñu dikkaat ci li nga xam se moo gën a fës euh, ci biir semaine bi ndax gis nañ ne Euh, ci biir semaine bi rek fii ci dëkk bu sell bi di Touba euh, ci gaar bi gis nañ nga xam si ne doot nañ ko fee faat euh, te loolu dafa mel ne du doon première fois bi rek ndax yàgg na fee am mu nekk loo xam si ne tamit dañ koy ñaawlu fii ci dëkk bu bi di Touba mhm. ndax gis nañ ne gaar ba xam nga tamit gis nga place yi ni mu fa daal di mel muy place yoo xam si ne ña ngi ko fa daal di sumb mhm. te àggalewuñ ko mu mel ne loolee tamit dina fay indi ay problème pour ña fa nekk ndax ña ngi koy jooytu saa su ne mhm. mu nekk place yoo xam ne bu fekkee ne marché la boo xam si ne dañ ko war a toj dañoo war a defar marché bi ñi man mën faa def bu fekkee ne tamit lu dul àgg la mhm. ñu màbb ko ndax loolu tamit dafay indi ay jiyee rek ci fii dëkk bu sel bi di Touba ndax gis nañ ne gaar ba ku ne xam ne ne tamit ay nit ñoo fa dëkk euh, yor sa ay borom kër yor ay xale mhm. tamit te gis nañ ne saa su ne rek bu guddi jotee dañ koy jooytu duñ mën a génn leneen mhm. nañ ci ne sax taxi boo arrêté sax ne gaar ba dafay daal di daw ndax gis nañ la la fa nekk wóorut euh, nekk na loo xam si ne lu doy waar la te gis nañ ne maanaam benn yoon bi rek mu koy am yàgg na fa am. ñu koy jootu ci kilifa yi daal. voilà ñaan tamit mu nekk premier point bi sëñ Mahmadan mm. euh, problème mu gaar bu ndaw euh, gaar ba sax la ñuy wax euh, mel na ni yàgg na. gis nañu ay homicide yoo xam ne mi ngi fay am ñoo xam ne dañ fay ñàkk seen bakkan certainement léegi bi ñuy ñëw sax ñi ngi doon jot ay xibaar ne am na ay yëngu-yëngu yu fa am ay manifestation donc problème gaar ba yow lan nga gis ne moom mooy saafara si gën a jàmm. fi ne jëy yooyu li ma fi li ma ciy dégg bari na lool te mhm. metti na nag wax mhm. dëgg yàlla bu demee ba rey am ci dëkk bu toll ni Touba bu demee ba rey di ci am mu nekk insécurité totale waaw mhm. war nañoo xoolaat nag beneen mbir te waaye li wér daal mooy marché bi jot na ci nag ñu seet ban ban solution la ñuy def. Mhm. ba jëli fi loolu. effectivement waaw parce que du du du loo xam ne la luy jëmee dëkk bi kanam la. macha allah euh, sëñ Ousmane gis nañu gaar ba tamit comme ni ko sëñ Mahmadan waxee problème bi mel na ni boobaak léegi mi ngi persister ba léegi euh, dañuy wax ne am nañu fa faatu mais solution yi fan la nekk. Euh, jërëjëf sëñ Ousseynou. Mhm. comme ni ko sëñ Mahmadan waxee rek ndax gaar bi moom koo xam ne ni Touba nga juddoo. Mhm. yaroo fi màggee fi. maanaam yàgg ngaa dégg tur bi. te comme ni mu ko waxee nii doo nga koy déggee moo di ne ay wëyoo fa nekk ay nit ñuy jaay lu ñu aay fii Touba la ndax am na ay image yu ñu wane ci internet bi yoo xam ne mm-hmm. da ngay gis bëccëg ñu fay jaayante loo xam ne sëñ bi da koy tere mm-hmm. rawatina nag moom bu loolu sax ñaaw na waaye li gën a garaaw mooy rey nit mm-hmm. rey ko tamit ci dëkk bu sell bi nga xam ne sëñ Touba dafay ñëwoon ngir jaamu yàlla ak ñëw fi ngir defar ay nit kon suñu demee ba yàqu-yàqu boobu di fa am loolu lu mat a seetaat la comme euh, mën nañu wax marché gaar ba waaye tabaxi gaar ba lañu war a wax ndax daanaka du am marché beeg ay tabax la yoo xam ne waxuma la ay ay ay rayante waaye nit sax mën na faa dëkk mhm. di su su bëccëgee mhm. mu dem defee lu ko neex ci biir dëkk bi mhm. su guddee mu ñëw tëdd si fa su boobaa nag man li ma jàpp ne mooy solution mooy xëy na kilifa yi ñu ko war a yëg suñ ko yëgee li ci solution pour man mooy ñu raser toj lépp mu jeex su ko defee bu ñu ko tojee rek moo am éclairage bi mu war a am nit koo xëy day yi bëggul fu leer bëggul foo xam ne foo toll di ko seen waaye su amee ay làqu-làqu wala am ay ay tabax yu ëggut loolu yëmul sax ci gaar bi mais dë koñ yi ngay dëkk sax mhm. tabax boo fa gis muy tabax bu eggul boo nga xam ne dañ ko faa teg noonu rek mhm. en général il faut mu am yooyu ndax ñi nga xam ne ñooy def ko tu ñaawtee fi loolu lañ bëgg mooy tabax yi nga xam ne eggul ñu man suñ defee seen yëf ñëw làqatu fa waaw bu leerul tamit comme mhm. yeneen ak yeneen comme ni ñu koy gisee fii ci Touba waaye man daal sama xalaat mooy mhm. mooy ñu ñu daanee lépp mhm. bu fekkee dañ faa war a def leneen loo xam ne xëy na euh, ah. toll nii soxla nañ te ci dëkk ci digg dëkk bi la ne mhm. maanaam lii laal Sénégal day ñëw laal Touba doon Touba spécial la dëkk bi spécial la mais nag des fois ngay gis nit ñoo xam ne dañ leen jële fenn nga dégg ñuy manifester naan suñ ñun fi dañuy daane suñ doole fii dañu nangam affaire yi waaye maanaam dëkk bu mel ne Touba nga xam ne Sëñ Touba dafa am benn projet de société boo xam ne daf ko def mhm. muy Matlabul Fawzayni mhm. ñaan ci li mu bëgg tuubaa mel ko népp kooku nag ñu xool ay intérêt personnel wala ay intérêt commercial wala ay intérêt yeneen mhm. ci xool intérêt yi nga xam ne sëñ bi moo taxoon mu euh, sanc dëkk bi ndax dëkk bi du dëkkub commercial dëkk bi dëkkub diina la sëñ Tuubaa da koo sancoon ngir yar ay nit ngir euh, tàggat leen ngir tërbiyee leen kon léegi nag lépp loo xam ne nii dafa safaanoog loolu su boobaa maanaam di ci xool ci intérêt kenn waaye sëñ bi ci boppam mhm. moom intérêt moo ci da te na ko yonent bi mhm. sallallahu alayhi wasallam bëgg na ko mhm. moom loolu bëgg nekk naa ni euh, gaar ba aussi euh, bu ñu waxee ñi muy tiital bokk na ci soxna yi nga xam ne dañuy dem marché wala léeg-léeg yenn heure wàcc yi di leen ci fekk am na ñoo xam sax dañuy tiit pour jaar fa loolu benn problème boo xam ne euh, vraiment ñi ngi koy jàmbat waaw dëgg la Ousseynou gaar ba nit ñi nga xamante ne nii dañuy teel a yeewu sax di dem gaar ba dañuy ragal pour dem hmm. ñi nga xamante ne nii tamit dañuy naa dañuy guddee wàcc dañuy ragal pour guddee wàcc pour ñibbi seen kër yi mais aussi nu man li ma ko jàppee mooy ñàkk yar gi hmm. ñàkk yar gi la parce que nit ki boo yaroo sa kër yaroo fa nga war a yaroo hmm. boo demee gaar ba même boo fekkul ñu toj ko sax sa éducation bi nga xam ne yóbbu nga ko ca marché ba di nga fa nekkee noonu mais du gaar ba kese parce que fi am na fi garage daaru am na ñuy wax buntu pikin ñu ngi fay wax ay buntu pikin <laughs> te loolu comme li am gaar ba nii amoon na foofu mhm. amoon na fa fële tamit euh, Madiana Madiana am na fa effectivement mbaar bu timis jotee doo fa ñemee jaar mhm. donc jikko yi moom lañ defarut Ousseynou mhm. nit ñi nañ yar seen doom yi seen kër yi parce que ñu ngi génn di doon ay woyu te ëllëg ki si biir dëkk bi kenn xamul daal li mu li mu li mu li fi nekk lan la parce que doom seen doom yi lañ yarut nañ yar seen doom yi bu baax a baax a baax